mbokku internet yu Dakar Net yi dañu kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp Ouzin ngeen di àndal comme ni ñu koy faral di defee ci seen rubrique reportage tey reportage bi nag tey dañoo ñëw fi nga xamante ni moom mooy Malika ndax mbir mu doy waar moom moo fi am démb bi 18 heures jotee jàpp 19 heures benn xale boo xamante ni mu ngi tollu si ñaari at génn àdduna tudd Aram Ndiaye ñu nekk fii nga xamante ni fii la mbir mi xewee mbir mi naka la demee dañuy dugg si biir waxtaan ak euh, waa kër gi waxtaan ak euh, yaay ji yomb waaye dinañ jéem pour dégtal ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mbokk internet ñi ngi fii ak euh, bi nga saw di yaay ci xale bi nga xamante ni moom moo génn àdduna ci lakk bi nga xamante ni am fii ci Malika ñu toog am ak yaayam soxna si ñu ngi leen di. maa leen di fay bu baax. mën a wax ci mbir mi nan la demee. ah mbir mi de ñoo jullee yàlla sant Seydina Mohamed di ko santaat bu baax. mbir mi daal ay man ay 6 heures 3 minutes laa génn ci néeg bi maa moom nag ñoo fanaan taaluma garabu yoo taaluma sondeel taaluma dara man ay salaire laa yor delloo bunt bi sama doom bu jigéen bi ànd man man damay liggéey génn ñu gunge ma mu dem mu ñëw wàññeeku bi mu daal fekk na néeg bi di tàkk tàkk gu metti mu ñëw tijji bunt kër geeg caabeem dugg bi mu duggee fekk xale baa ngi ci néeg bi mu daal di daw dugg ci biir néeg bi wër ko wër wër nefe ne ci biir la nekk gisu ko mu génn woon ginnaaw wàññee ko ci bunt bi ci ginnaaw daal la ko fekk ci ci bunt néeg bi mu tëdd jé xale bi sax jéem naa génn bi nga fekk mu tëdd mu yëkkati ko fekk suñu borom suñu morom bi suñu dem na bu yàgg mu yëkkati ko daal di daw fëgg mag ju góor ji daal ne ko Abdou mu ne ko naa mu ne ko diw dee na kooku daal di jóg daanu jógaat daan daal di génn bi mu génnee kooku xool ko daal di yuuxu xale yi fi may liggéey dañ ma fekk rek woo ma laa si xamut dee laa ci am tamaa ak moom a fanaan te taal néeg bi tamit yàlla rekk moo xam munu ma ne lii moo taal néeg bi lépp nag maa ngi koy bàyyi si yàlla xëy na lii moo gën si man gën si moom sama doom maa ko tëral ci lal bi dara wëccu ma ko lu koy lakk ma ñëw rek ñu ma sa service ba sa doom dee na sama doom jigéen na ma woo mu metti torop njortoo ni dara dara dara dara moom moo tax mu néeg bi tàkk amul lenn loo xamante ni njort nga ni lii moo tax mu néeg bi tàkk munu ma ne la lii la aw ma leen lu ma mën a rax résultat bi lii moo taal néeg bi wax dëgg yàlla aw ma ci benn résultat benn si temps xale yi dañ ma fekk fi may service mais li génn ma néeg bi tàkk na néeg bi tàq na diw dee na loolu rek laa am Aram Ndiaye dee na. ñaata la am. am na ñaari at ak ñetti weer. Eh, li ñu la bëggoon laaj tamit eh, ndax eh, autopsie bi génn na wala génnagul. autopsie bi génn na waaye papaama yor kayit yi ñu ngi noonu sax dem nañ tribunal ba signé kayit yi pour ñu jëli ko. waaw moom la ma génnee moo yor kayit yi papaam xam naa ñoom léegi ñu ñëw. ndax mairie mairie Malika bi ndax jot na ñëw fii masawu leen jaale leen wala. mairie Malika bi si ñoom ñoom bañ leen jógee tribunal dañ leen dem leen mairie ñu signé kayit yi foofu waaw loolu lañ leen wax ñu ngi noonu di jógee Pikine tribunal Pikine pour ñëw mairie Malika signé kayit yi xaw ma egsi nañ wala egsi guñu. mais waa waa mairie bi si boppam jotul ñëw ci kër gi. non non maire jotu ñëw sappoor ak police yëpp ñëw nañu ak chef de quartier bi ñëpp. nan nan nga lan nga bëgg ci mbir mi da nga bëgg euh, bu dee daa am loo si njort da nga bëgg yoon def liggéeyam comme ni mu ko waree wala. aw man lenn lu ma si njort man lépp da leen dama ko delloo si yàlla yàlla na suñu borom leeral lépp laay wax ndax sama doom gi doom gi seet la muy ki ma bëgg sama xool muy sama àddina ba ñàkk ko mënuma ci moom dara jërëjëf sant ñoo ngi gërëm ñoo ngi gëm yàlla nag bu baax ci dogal bi mu indi ndaxte kii nga xam ne moom la dogal bi dal ci kawam ku gëm yàlla la ku wóolu yàlla la ñun ñuy ay bokkam it ay jullit lañu gëm nañu yàlla wóolu nañu yàlla mbir mi nag ñu ngi ko teg ci loxo yàlla man dama kaa yéex a yëg sax bii ci guddi bi ma tëddee laa koy soog a yëg ndaxte mbir mi nii rek ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ndaxte kenn fekkewul ba muy tàkk kenn gisul bu muy tàkk bi tàkk-tàkk lu méttee rek la ko waa kër gi yëg ñu jéem a sawe xale bi fekk yàlla moom na ko kon nag mbir mi nag moom métti na lool lool lool lool waaye sunu borom lañ koy jooytu duñ ko jooytu kenn ndaxte kenn xamul ku def lii bu dee def def la kenn xamu ko bu dul def def du miir yàlla rek yàlla kese la waaw ñoo ngi delloo njukkal yàlla sunu boroom dool di gërëm yàlla sunu boroom waaw jël mitit bii nag tegoo ko te xam ne yàlla kese la yàlla kese la waaw di ko ñaanal moom mii nga xam ne moom la mitit wi tal yal na ko yàlla fayal métitamu xolom bi yal na ko yàlla fayal metti nañu ñun ñëpp kenn nelawut metti nañu ñun ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yéen waa télé bi di ñaanal borom télé bi yàlla na ko yàlla jàppale jàppale mboolem julliti yàlla yi borom télé bi de nit ku baax la ndaxte lii moom lu baax la lii moom lu baax la metti na na waaye mënuñ ci dara mënuñ ci dara. mais amul lenn doon taxawaalu suñu néeg bi loo xamante ni amaana bi làkk bi amee par ngeen wër ko njort lii moo waral làkk bi. ah man de wax dëgg yàlla tey ci suba laa ñëw waaye dégguma loolu tamit de dégguma loolu. yaayam nee na dara newu fa yoon dara newu fa woon loolu taxoon nag affaire bi ñu jaaxal ñu ndax xam naa ne bu fa dara newoon nit ñaari at ak nangam munul def dara munul def dara loolu laa loolu sama njort jox man waaw ah lu ne nag day xew ci lakk lakk toujours day am te doo xam kan la waaw mbir mi daal dikk na sunu boroom rek moo xam sunu boroom rek moo xam lu ko taal li ko taal yàlla rek moo ko xam waaw ndax xale bu xale bu tuuti la. xamul sax luy foyee eh, luy luy lakke te mu ngi ci mu ngi woon nekkoon ci nelaw da doon nelaw waaw. balaa sappoor doon ñëw daal génn suñu boroom moom na ko balaa sappoor doon ñëw. waaw dem na laata sappoor bi ñëw nelaw na. fekk naa mu dee ba sama doom bu jigéen bi yëkkati ko ci néeg bi tëralal ma ko fii moo sama doom bu jigéen moo ma woosi sama taabu jigéen moo woosi muy mu taxaw ci buntu entreprise bi yaay yaay ma ne ko naa mu ne ma wàccal sa diw dee na ci laa daanoo gëw ma ko sax bi ma ñëwee ba yegsi ba gis ko laa ko gëm néeg bi nag dara génn du télé du matériel du lenn yére bi yére bi ma sol dee ma sama rakk ma ko indil du lenn li ma xëyee woon laa dese ci àll du lenn. amul benn matériel bu yàqu si néeg bi tamit. lépp a yàqu dara desul. waaw ak ay lal ak ak éponse ak lépp dara desut mun naa ne la néeg bi lu ci nekk dara génn dara génn la ku metti metti yàlla naka xam dis naa lépp suñu boroom dis naa ko lépp maa ngi tàllal yàlla sama loxo di ko jooy lépp wallaay jëree jullit laa yàlla na ma ko yàlla leeral Seydina Muhammad loolu daal laay ñaan yàlla loolu laay ñaan yàlla. di yaayu xale bi quoi nijaay laa ci xale affaire moom bi mu amee dégg naa euh, am bi ne néeg bi moom amul woon dara lu fa ne quoi waaw dara amul sondeel amul biir kër amul dara amul ànd amul dara waaw affaire bi mu am tamit fekku fi yaay ji quoi def fekk mu xëy quoi waaw affaire nag après man ci lañ ma woo quoi ci lañ ma woo biñ ma woowee après ci laa ñëw mais bi ma ñëwee moom fekk na affaire gars yi génn ko waaw ñoo ñëwee fekk gars yi dem nañu quoi waaw mais affaire métti na trop métti na trop waaw ñu leen ñaanal yàlla na leen yàlla wuutalal lu gën quoi waaw. waaw yaayu xale moom ay doomu bàyyi lañ maag moom sama mag la mais macha allah nit ku baax la ku teey la parce que fan yi rek la jóge woon suñ kër quoi fan yi la jóge woon suñ kër après bi mu ñëwee dimanche bi bi ci topp après ci la ñëw toxu si fii quoi ci la affaire bi amee nii quoi. mais macha allah yaay ji moom macha allah liggéeykat la liggéey la xam ci moom ak jaamu yàlla mais xamaguñ ci moom leneen quoi waaw. ndax dafa am euh, loo xamante ni jàpp nga ni euh, soit maire bi wala autorité yi nga xamante ni ñoom dëkk ci zone bi nii nga xam nga jàpp nga ni am na loo xamante ne war nañ ko def. waaw fii mel ni xaw bu mu munul ñàkk tamit mu xaw fee waaw lii moom xam naa ne ndogal suñu boroom la rek. waaw ndogal la rek parce que autorité yi tamit macha allah jàmbaar lañu trop. parce que ñëw nañ fi ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci affaire yi macha allah jàmbaar lañu trop daal waaw loolu daal laa ci mën lu ma doon wax